asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñoon dañu seetaan te dañu déglu fu nu mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi toogaat fii ci kanam cheikh mahamadul basir moom cheikh abdul xaadir mbàkke mi nga xam ne saa yu jógee ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa lay jóg ak ci kàddoom ñu déglu ndigal li bàyyi ko ci sëriñ tubaa cheikh mahamadul muntaxa jaar ci Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo di rakkam te yore kàddoom di fàttaliwaat tam li nga xam ne ndigal la loo xam ne dafa bàyyi ko ci moom mu di ko santaane jëm mu jëm ci dëkk bi hmm. loola moo di gis nañ ne eh, assainissement bi nga xam ne defoon nañ ko ci dëkk bi daaw mbënd mi mettoon na ci dëkk bi waaye la ko gënoon yokk mooy taw yëpp dafa fatt hmm. loolu nag sëriñ bi wax na ne eh, da cee joxe ndigal tey bëgg taalibe yëpp góorgóorlu ci farlu ci ndax euh, commune bi nañ xam ne alali sëñ bi ña fa ne sëriñ bee leen fa teg kon ñoom bu fekkente ne ci seen loxo la la ko teg itam nit ñi waruñoo toog leen seetaan nañ xam ne njabootu sëriñ bi lañ alali sëñ bi mm-hmm. kon loolu euh, la euh, ñoo xam ne kon gàttandu leen ci loolu mm-hmm. bokk na ci liy dimbale moo tax sëriñ bi jox ndigal la Serigne Cheikh Mbacke mi Serigne Abdou Latif mi nga xam ne lépp lu aju ci loolu ci loxoom la ko teg euh, muy mu di ci taxaw taxawaay bu rafet at mu jot yéen a ngi koy gis Serigne bi joxaat ko ndigal moom dana ci sàddi kàddu waaye dana dajewaat ak yéen yéen daje wax leen ni mu ko xalaatee ak yéene jëm ko bëgg a defee waaye Serigne bi xam ne daal joxe na ci ndigal ñu jàppale ci commune bi mm-hmm. ndax bu soñoon ñu agsewaat ci nawet muy mel na meloon daal wala moo ko yées loolu kenn bëgg ko kon noonu taalibe yi nañ xam ne loolu ñoo ko jariñoo mm-hmm. te na ci ñoo xam ne dañoo fekk fii nga xam ne assainissement boo xam ne ndoxum taw bi moo fa jaar mm-hmm. ñu jël seen foos yi ci biir kër yi mm-hmm. branché ko ca loolu mbir la moo xam ne képp ku ku gisati ku ne war ngaa dem ci ñëw dëkk bi nga yëgal leen ko ñu fexe nañ ko saafara ndax loolu taxu koo jóg assainissement boobu ñu ngi koy tàmbali waaye dañ koy door tàmbali àggagut kon assainissement bii fi nekk ndoxum taw bi moo tax a te loolu ndox mi day jaar fu ne kon loolu waris na ko bàyyi xel ñi nga xam dañuy jël mbalit tam di ko sakk ci biir eh, fi nga xam ne fi la ndox mi jaar mooy loolu moo wax bokk na ci li gën a indi gàllankoor loolu nag la sëñ joxe ndigal ngir bëgg ñu góor góorgóorlu ci ndax bu soñoon nekk ci dëkk bi ngir wuy si woote Sëñ Tuubaa bu noppi nekk ci tumuraanke diis na ci moom kon mu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ni mu ko diglee ñu feexe ba defe ko noonu ndax eh, Cheikh Ibrahima Faty daa wax ne liggéey li liggéeyal Sëriñ Tuubaa du wàcc kenn te war na ñëpp mhm. kon nag euh, bu ci sëriñ bi joxe ndigal mhm. ni ñëpp xam ne seen njëriñ ci nekk mhm. te euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne euh, li am solo ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mooy façon bi waaye na may fexe ba mu sottoom nekku ci suñ loxo ci loxo sëriñ bi la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfe suñu jëwriñ yu baax yi loolu bu ma ko waxee mën naa wax seex Cheikh Mouhamadul Mountakha mi Sëriñ Tuubaa waaye ma wax Cheikh Mouhamadul Basir mii li tax ma wax cant yooyu nag danañ sant sunu boroom mi nu Sëriñ Tuubaa ni ko Sëriñ Mountakha di waxee sant Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne amul lu moom te moom rekk lan soxla am waaye boole nu ci njabootam gi muy liggéeyloo li ko nuy sant ci boole googa waaye cant gi nag faaw ma excel ko ci ñi nga xam ne ñoo tax bu liggéey Sëriñ Tuubaa jógee ñu xalaat ma te mooy Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mamadou Bassir mii xalaat gii ñu nuy xalaat ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii loolu sant la cant gu xam nañ ne dañ na ci fàggul ci aw yiw kenn mënu koo natt kon dañuy sant rek boo santee ba noppi nag nuy fasoo jëfe ndigal fu ko déggee waaye di faso waaleel taalibe yëpp yàgg nañ noo yónni ci taalibe yi ndigal luy jëm ci liggéey waaye fu ko ko yëkkatee taalibe yëpp ci ànd ba defe ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ Basiru mii yàgg na noo jox ndigalu sëriñ Tuubaa mu jëm ci setal dëkk bi waaye buñ ko yëkkatee taalibe yëpp lan koy àndal te na ma ko daan waxee mu tàmbalee ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Cheikh jëmb laay njëkk a dem ba ma sëñ Masane yebal te lii noonu laa koy defe waat ba noppee nu dajale waat nag bokki taalibe dëkk bi yépp ñu jiite daayira yi ak ñu jiite mbooloo yi nan ko daan defee ba nu waree setal dëkk bi muy mbale ma ndax lii day liggéey bu rëy bu am solo itam ndax ñu koy waxee balaa kenn mën a def dara set daa am waaye mënuñoo bale mu set ndox mi taa fi rawatina bi jëm ci biir màggal gi taataa yi ànd ak salte yi ne ci kaw tali bi wala ne ci kaw mbedd yi set di mën kon ñaari liggéey yi ñu ànd te kon bii moo war a njëkk ñu sekkar ci kanaal yi ba bu tawee ndox mépp dem bu mbalit mi desee ci kaw nag nu bale ko tonni ko balaa màggal gàddu ko kon kay dañ ñoo dimbale ci gàttandu ci sunu liggéey gàttandu googu itam nun dana waroon bis bu set buñ xëyee nun ñëpp nu dem liggéey li Sëriñ Tuubaa ndax ni ma koy waxee lin waroon na liggéey ngir am ko nun Sëriñ Tuubaa dañu ko andil yombalal ñu ko kenn ku nekk xam na dëkk Tuubaa ni muy yombale ak dund te loolu pàggu Sëriñ Tuubaa la kon nag waxtu wu ñu wootee ne Sëriñ Tuubaa soxla na taalibe yi taalib bi yëpp dañoo war a bàyyi lañ doon def bala sëriñ bi def lu ñu def ko ba noppi te danaa wax ci soññee yi ne waxtu wuñ déggee baatu sëriñ bi bàyyi suñ bopp dem ca sëriñ bi buñ delsee dana fekk sëriñ bi yombalal nu walla wóotanu ci suñ bopp loo xam ne suñ pexee bopp kese mun na ko may ni mu lu yàlla lay doon lu jaar ci sëriñ Tuubaa egsi ci noonu waaye loolu nag lay doon njëg gi mooy waxtu wu ne nuy yeesal suñ pas-pas di yeesal sunu jaayante di yeesal sunu yitte ci bu nu déggee baatu sëriñ bi bala noo amati seen soxla bala noo defati dara loola nañ ko def na ko sëriñ bi bëggee kon loolu nag lay tàmbulee woote bi ni ko sëriñ bi waxee bu nu yégee ne am na ndigal li waxtu wuñ ci waree jublu nag ak nañ ko war a waxtaanee waat ak nañ war a wootee waat lépp daanu ko def ba defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ci diggante boobu itam jëwriñ yi kenn ku neen tàmbalee am xalaatam ca lay yombal liggéey ba la koy baaxal la koy defaral ndax daanaay wax ci suñu réunion yi njëkk ngir mbale mooy nan am jenn yitte mooy li sëñ bëgg nu defal ko yitte jooju buñ ko amee nag kenn ku ne di ci génn sa xalaat kenn ku ne ci sa pastéef kenn ku def ci sa taxawaay yomb rek lay mën def démb am na ko muy waxal ne ko taalibe liy ndimbalam mu am pastéef ba nga xam ne doo am jenn yitte judul déglu ndigal te bu ko déggee fas ko yenn jëfe kon sëñ ba soo leeral nañu ko léegi na ko Seex laa Lahat waxee bu ko fasee jëfee rek sëriñ bi moo ñu won na ni jaar ba jëfe nga am ndax sëñ bee ko yorul boppam kon sëriñ bi maa ngi nangu di façon di feddali di ko defaale taalibe yëpp na ngeen ko bëggee danañ ko defee incha allahu na mu daan demee mu demee nii na ngeen ko bëggee ngeen amee ko ni nu itam bu nu fa jegee lu nu bëgg mu yomb lu nu amee ko noonu ngi sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah bokk na ci nag ab taalibe bu déggee ndigal fasaasa mu daal di koy jëfe ana ñan ñoo war a jiitu ci jëfe ndigal li mooy ñi nga xam ne ñoo tax ñu joxe ndigal li te ñoo branche la seeni force ci kanaal bi bi ñu déggee ndigal li rek fasaasa dañuy xam ne buñ ko defutoon sëriñ bi du defee joxe ndigal li kon dañ ko war a daal dindi fasaasa ñi nga xam ne dañuy jël seeni mbalit di ko sotti ci kanaal bi ñu xam ne ndigal loolu ñoo tax sëriñ bi joxe ko su ñu ko bàyyee rek suñ ko dindee dara duutu fa amaat kon nag ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci cheikh Mouhamadul Basir ñëw ci Serigne Cheikh Abdou ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko daan jàppale ci wàllu bale dëkk bi rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ak daayira yi ci dëkk bi yëpp kon ndigal li tàmbali nañ ko nañ ko fas yéene jëfe tey ñaan Serigne Touba Khadim Rasoul mu yàggal fi Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa waa yàggal fi jëwriñam yii di Cheikh Mahamadul Basir mi yore kàddoom ak jëwriñam di Serigne sii Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad ak mbooleem sëti Serigne Touba yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa